ne benn nappkat moo yem ci benn gaal goo xam ne daaya ba fees dalekki doomu aadama te ñoom ñëpp kenn ci ñoom àndul bakkan ndax dañoo dee ci géej gi ay waay li tamit mbaa la turbine yéene kaay ne lu jege ñaari téeméeri migrant kay ñoo dee ci waaxi Sénégal gi lée lu tolloon 48 kilomètres ci waaxi Ndakaaru capitale bu Sénégal libération ne gaal gi yeboon nit ñu dee ñi ñoom ñëpp kay mbuur la bàyyee ko woon laataa muy teerti fii ci large mamil yi lée libération leeru ci lii yor yor yéene kaay ne surfacturation bu jege juróomi milliards suñu koppar moo am ci projet électrification rurale bu ASER birée mooy ak tune dëkk yi nekk ci Louga ca Kaffrine ca Ndar Géej ba ca Kédougou jàpp Tambacounda te waroon joteekoon ci programme ASER bi lée moom waa ji gañe marché bi lu ëpp fanweeri milliards ak juróom benn la jot ba noppi te mënuñ ci indi benn firnde genn gaal gu fes del ak ay néew lañu fekk ci digg géej gi ngor néew yi dem ba yàqu ci géej gi bari na de leen yàlla ku ñuy wax Mouhamed Dieng moo yóbbu Lat Diop ci kanamu yoon wane ay capture d'écran boole kook ay euh, document de transaction bu wane ne moom dugal na ci compte Lat Diop Lat Diop lu war a tolloog sept milliards waaye Lat Diop awkaam mim na ba tëdd ci suuf daal ne li ñu koy toppee dara du ci dëgg moom mooy détournement de deniers publics ak euh, blanchiment de capitaux ñi xam daal ne ku jàpp corrompu nag war a jàpp corrupteur Mouhamed Dieng moom warta woon fanaan ci mbedd bi boo sàgganul enquête yi dinañ def confrontation ak digganteem euh, Farba Ngom daal ne takk der yi dañoo dugg biir këram ca toolam di def perquisition sans pour autant ñu am mandat mën nañ fa bàyyi drogue mbaa ñu bàyyi fa ngànnaay ba pare tuumaal ko ko waaw moom nee dina porter plainte président Macky Sall ne bi mu jógee ci bopp réew mi ba léegi lépp lu mu war a jot ci privilège en tant que chef de l'État jotu ko. ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de eh, coowal lonaas koo gae ak wan xbet la Diop daal dinañ koy garde à vue waaye mës ngeen a gis kay gëraate ñu bàyyi ko mu dem kañuy gar ñu teg ko loxo en tout cas la Diop day lu tolloo dix heures de temps daal dinañ ko koy déglu laataa ñu kaa garde à vue Mohamed Dieng bu wan xbet waaw daal dinay dëggal ne la Diop mi laal na lu tolloo juróom-ñaari milliards la ilaha illallah Mohamed Dieng waaw nee na jox na la lu tolloo sept milliards yoo xam ne nag ci ay versement yu baree bari la ko ko jox laa ilaaha waaye la Diop day weddi na luy ne mel kon ba tëdd ca suuf libération yi nekkaa ne Lat Diop day waaw président directeur général wan XBET moo ko jaay de moo ko balancé de yéen kaa gi ne en tout cas daal lañ doon waxtaanee ci wàllu whatsapp bi de waaw enquêteurs yi dañ koo capturé ak koppar yi nga xam ne nag moom lañ doon jokkalante lii la Mohamed Dieng ak la Diop doon wakkoon ca division des investigations criminelles di dikk libération yi nekkaa man kay man maa lay wax nag maanaam enquête lan la fa gaañ parce que gis nga Mohamed Dieng mi lée waaw nee a gën a gàtt jox na kon Lat Diop mi lu tolloog cinq milliards la ilaha illallah oh, moom Mohamed Dieng daal dina jébbal tamit enquêteur ya ay copie capture whatsapp bi mu doon waxtaanee kon ak kii di Lat Diop laa la wax te nee na Lat Diop ca xaalis boobee waaw defar ci ay kër de bokk na ca nag benn kër goo xam ne ca Grenoble ca France la ilaha illallah waaye moom la Diop moomee bañ ko laajee waaw nee na loola dara nekku ca dëgg Mohamed Dieng mi de wan xb benn cinq millions la ma mës a jox te wàllum sponsor u Guédiawaye football club la waa moom mbaa jàmm la nga yëg nga ñàkk yëg libération naan man pàccoo gi ci réew mi day marde itaali observatoire bu qualité de service financier moom waaja ko jiite woon président Macky Sall la àndaloon compte société ba la doon wide ba ñu ko laajee mu ne problème bopp la am wérul contrôleur bu trésor ba ñu jox ko ñaar fukki million ngir mu noppi mujj gi mu ne juróomi million la jotte delloowaat na ko directeur ba dañoo mujj nag trafiqué ordinateur ya saboté ko ba benn trace du am def ay facture yoo xam ne baaxul lëkkaloo ceeg yeneen entreprise diggante communauté chrétienne ba nga xam ne ma ngay guerre ak Ousmane Sonko ci waal ga te naan kon respect la chrétien yi bëgg ngir seenug diine le mandat naan kon waxtu woowu daaru alpha ma ngay jaajëfal Bougane Gueye Dany ci diggee ga mu diggee woon tabaxal leen ak jumaate te matale ko tribune yéene kaay naan kon juróomi million it mu jébbal ko ñëmbënd ma sonal ca tuuba ñaabar ñaabar di aw sëriñ Muntaxa ci sinistre yi waxtu woowu yéene kaayub dee média bi naan man Njaasaan ci boppam ma ngay ñaanal njiital coalition gëm sa bopp les jàmbaar le peuple kon waxtu woowu moom président Macky Sall ma ngay teggi tuuma nee mësta def benn protocole te la ko warloo woon ak Amadou Ba def na ko lay privilège yu ancien président amu ca lenn lii di wane ni amul déggoo goo xam ne am na diggam ak président Diomaye ak Ousmane Sonko. waaw euh, te ñu ngi bundu xataal ay njabootam di jàpp ay partisans partisans yooyu lu war a tolloog fukk seen i dossier noppi nañ moom si wàllu détournement de deniers publics euh, dañuy xaar mbir mi yemb rek ñu yóbbu leen ci kanamu yoon ngir leeral ko élection yi ñu dëgmal parti démocratique sénégalais réew mi ak APR ñoom noppi nanoo ànd AFP Khalifa Sall ak PS dinañ ànd ak Amadou Ba ngir dem ci élection yi waaye Pastef ñoom ci lu ma nar a ànd coowal voile nag ci diggante église bi ak Ousmane Sonko boo sàgganu dina indi jéye ak musiba dañ teel a jug waay wax jooju ngi commencé graissé de waaw ah, baax na. néegu tooxidona ya buntu ba ubbeeku na naaw mbënn mi nag itam la nga xamante ni moom moo di accident de ba tey ret mu ngi woy di lëmbee réewum Sénégal di faat ay bakkan ndax nag diwaanu Kédougou nag foofee daal ñaari gendarme yu nga xamante ni daal ñoom ñoo fa nekkoon daal di def seen liggéey daal la ab daal di ñëw mbëkk leen kenn ki nag ci saasir la daal di ñàkkee bakkanam faatu wuy ji boromam ndax yàlla xaare ko aljanna keneen ci la nga xamante ni moo di ay gaañu gaañu yu métti moom mi nga xamante ni nag moom moo di gendarme bi sax ab néewam daal dañ ko daal di yóbbu ci district bi ndax nag moom bi nga la daal di àbb ay dàllam daal di ko ne mës ni mënten eh, ba tey rek itam ci la nga xamante ne moom moo di accident yooyee itam beneen am na foofee ne ca village bu Kolona nekk itam ca commune bu Ronk eh, maanaam accident boobu nag sax daanaka ab si daal di ab oto ñett nit nag seen bakkan mu nekk nag mbir mu nga xamante ni metti na loolu tiis na loolu ndax nag jamono bi sax ñu bëri ci chauffeur si nag ñoom li ñuy joy ret moom moo di ñu ngi wax accident yi waaye itam nag leen ret moo ko andi lañ jàpp ret moom moo di xataayu nga xamante nag ñoom chauffeur si yenn ret moom moo a ko nga xamante daal def nga infraction ci kaw tali bi ñu daal di nangu sa permis même bu dee dañuy sanctionné ab diir. ñaari commerçant yu mag a mag yu nga xamante ni daal di ngeen daal di jàpp kenn ci ñoom nag di am homme d'affaires bu nga xamante ni nag mi ngi wóor ki Zeydan moom saa itam nekk nag ci ab bopp benn kuréel gu nga xamante ni daal dafay importer ceeb fii ci diwaanu Sénégal ñoom saa itam ñu ngi ñi nga ne daal dafa daal di am ab complicité bu réeré ak ña nga xamante ni daal ci benn këru liggéeyukaay bu réeré la nekk fii ci Sénégal ngir def la nga xamante ni daal moom moo di ab détournement lu ci mënti am daal itam ñu ngi koy xayma daal ci fukki milliards ak juróom ci suñu ay koppar loolee nag saa nekk nag mbir mu nga xamante ni sax tax na ñoom ñaar ñooñu ñëpp daal ñu daal di leen di teg loxo. lu ci mënti am daal ñoom ñii daañu janoo ak procureur ci fa yi di ñëw ngir xool ana fan la wànnente di mujj ak itam beneen mbir bu doy itam bu xew foofee ne ci diwaanu Kër Mbay Faar moom moo di mbiru xale bu góor bi nii di wékkituru jaajika moom saa itam dañ koo daal di faat xaritam sax moom moo ko daal di faat gannaaw ab jàppante bu nga xamante ni jàqamte bu ñàkk fayda ci may ma café may ma lere ñu daal di rocci paaka jamante ba kenn ki ñoom itam daal di ñàkk bakkanam mbir moom saa itam moom moo nekk nag la nga xamante ni jamono bii moom moo ëlëb askan wa nga xamante ni ñoom ñoo yewo foofee ne ca diwaanu Kër Mbay lu ci mënti am daal jamono bii ka nga xamante ni nag moom moo ko faat kenn gisu ko waaye nee ñu ngi koy wër lu ci mënti am daal moom xale bu góob itam ñu bëri jàpp ni seet na ni que ku amoon taxawaay la ci ko itam ak mbiru fiiraange bi nga xamante ni moom moo tax xale bu jigéen bii daal di woon lor àgg ci weer nekk foofee ne ci diwaanu Malika loolu la def ndax moom nag ab paak rëgal daal daal di koy jam borom këram ci kiwis ndax nag fekk nag borom këram di wuy téléphone wax ak beneen xale bu jigéen bu nga xamante ni daal jàpp nañu ko kookee coorob borom këram la ba mbir mi nag laal di mujj ci loxo yoon moom xale bu jigéen nag sax bu ñu moytuwul caabi dina ko féetee gannaaw donte nag sax moom dafa wan lor borom kër nag daf ko daal di plainte ne nag du dindi plainte boobee gannaaw acte nga xamante def na ko. mbokk xarit yeeg dëkkandoo ñu jox leen dig daje bu subaa ak ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax baax jox leen seen wàcc waaye di jox dig daje ngeen jëf. Sénégal, bonjour. cher gente de di Enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum seet loolu rek mbaa yéen a nga ca <laughs> seen tët ba suba ak jàmm incha allah ñu yendoog jàmm C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la ci dong mais la ci de ci Allah fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm tey <laughs> lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay Sonko te Sonko jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Diakine Diop. ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha